manifestation yi ñuy amal si biir réewum Sénégal day indi ay njeexital saa su rawatina ci secteur informel bi bi nga xamante ne lu toll si 95 pour cent si économie sénégalaise moo ko boot li ni mel di jur ay jafe-jafe yu bëri. et ñun booy xool suñu économie euh, lu ci bëri dafa dëppoo si li nga xam mooy informel informel bi mooy euh, li ñu tuddee économie taaba taaba. te bu ñu waxee tey ji marche day am wala ñu wax ni rek ni sub opposition bi day wàcc sur le terrain dañuy seetlu que ni boo xoolee zone yi nga wax yëpp dañ fay wàcc ñun ñëpp dootuñu liggéeyati donc ça veut dire secteur informel boobu day daal di nërmelu carrément loolu dafa nekk benn manque boo xamante ni bu rëy rëy bu ñuy bu ñuy perdre te duñ ko mës a dabaat buñ sukkandikoo ci économiste bi bu moytuwul investisseurs yi duñ sa wax ci Sénégal xam nga bu ñu waxee investissement rek da suñu xel da dem si ñaari mbir d' abord mooy stabilité politique bi ak stabilité sociale bi su fekkee ñaar yooyu dajewul rek investisseurs yi nga xamante ñoo jóge bitim réew di ñëw du ñu mën a investir si dëkk ba parce que kenn ku nekk da koy xool rek bëggoo di investir à perte loolu mooy waral ñoom balaa ñuy investir dañuy xool ndax dëkk bi am na stabilité politique. ndax dëkk bi am na stabilité sociale ñaar bu dajee rek mën nañu investir ñoom ci réew boobu nga xamante ni ñaar yooyu daje na fa Babacar Gaye daal dina woo opposition bi ak nguur gi ñu waxtaan. loolu moo tax ñun dañuy invité pouvoir bi comme opposition bi ñu toog waxtaanee ko trouver des solutions yoo xamante. mën a trouver euh, des solutions à l'amiable yoo xam suñu économie lañ si mën a gis boppam parce que perte de cinquante yooyu du rattrapé loolu moom am na lu ko gën. moom professeur économie bi xam na ni saa su manifestation amee réewum Sénégal mën na ñàkk lu jege juróom fukki milliards suñu koppar kon nag mën nañ jàpp ni saa su manifestation amee économie bii dégg